شاء الله باللوء والخلام مفوز ثم سيكا سك العزيم كرسي يا الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به وروح يا الله علي سل واسع لدائما أبدا ومن أفاء ليوم ديني يا الله علي إزل لوازان لم دائما أبدا ومن أفاء ليوم الدين يا الله بارك الله ومن خفوه يوم الدين يا الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله nu santati yàlla borom bi tabaraka wa taala wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi alwahidu al ahad alhamdulilahi xaqa xamdi alhamdulilahi ala kulli haalin suma salaatu wa salaam ala sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noo ngi leen di siyaarati mbooloo mi fi teew yépp siyaar bu gën a tedd te yiw buy génn ci xol di jëm ci seen jëmm ngir war may barab bi ñu toog ak jëmmi jataay bi li ko sos muy xidmatul xadim liggéeyal Sëñ ak Pastef yi ngeen ci àndal ba sas yi moom ko rëddoon ajjuma ju ñëw ñu romb muy waa réew mi jataay bi ak waa biti réew mi yëpp nag ndax fii ne ñett ñoo ñoo koy doxal ajjuma ju ñu dajee fii ñi teew ci mbooloo mi daan na bay seen waar ba mu teeri ñu ne ci réew mi te nekkuñu jataay bi def li ñuy def di ko jaar ci téléphone yëpp waaye ñu ne bitim réew it di def li ñuy def loolu mooy li fi nekk bis bu yàlla sàkk ba tey jii ay nit jaaju ne matul xadim bi ngeen def te ma dégg ko laa bëgg ngeen wax lu ma ciy bokk ba tey maa ngi lay wax léegi ni la def ni man del julli si juma tey jii lu ne daje na fi suñu xadim mi laa ko ne boo noppee nga yéeg ci kaw moom Baye Cheikh nekku fi ku ci nekk wax joo xam ni yéemu na am na ci ans mi aristéré ñu nekk amerig France ak Allemagne ba Japon ñu nekk ñëw nañ fi tey ku nekk wax ni ci seen bii daa leen di seetaan waxi tolluwaay yu yéeme yuñ tolloon waaye su ma gindikoo ba yàlla am ci man cër bi moom ma jox ko ko yéen a tax lu ne wax nañ ko te yem na soxna soo xam bayiko bàyyi ko Touba daf ma yim ya mak ña dan tuké la tuké si fi ne fi ne ay siwoy muuraake la defar do ko faté sama gon ngi àndaale kon seigne Matar xana ko bëgg la <laughs> muuraakeeg su ko tel ci soo xam nga xamni mo la mak ñu yoron bu jëk yoy la wajal ak yi ñebbeeg yefi yëfi mag ña ndax mo mag ni ma kër sëñ Abdou Baaxee la dëkk waaw waye day manam émission yi ni ñu koy waxtaanee ñun mom sax mo ko mo ko gëna xam ak ak tour yalla yi ci rek mo njabootam émission bo def bu ne lay wax ni li ngeen ci waxoon lim bi ngeen noppé ni la ko defee waye man dem ba ma ko defé li la ci gis da xone man ma ne ko yow da nga sawarloo ndax dem la jóge touba nga tak sab saak topp ak aas bi mu am ku fi teel xëy si la ne dara taxumaa ñëw loolu naa leen gis rek ngir sëñ Xaadim mu ne ma damay dégg wax Baye Cheikh ak Baye Ndiassé ñoom ñëpp xam naa leen te gisuma leen ku yéeme la moom ndeysaan mu mel ni ñooñu nag boo leen bu ñuy waxee ak yow daf lay soññ yow mi nekk ci biir yëf yi ndax Pastef yooyu ñu yor noonu ak engagement yi jël nag ñoom ci màggalu Sëñ Tuubaa gi ñu dëgmal kon nag ñun ñëpp nañ gën a takku te nañ gën a taxaw te fonk liggéey bi loolu sëñ mu taxaa di wax ni bu mu laal suuf nan am yéene ren suñu yàlla mayee ban fekkee ko luñ musta def nan ko def ci addiyee nan ko def luñ musta def luñ fu doon liim rek nan ko yokkaat ndax sëñ Tuubaa rek a jar liggéeyal moo ne xàndal ndax liggéey bi ñu koy liggéeyal kër gis nañ ci suñu bopp ñun ñëpp ci yokku yi yàlla moo xam ne loolu te yéen xam ngeen ko koo xam ne benn boo fa def bala nga faa jógee mu fay la fukk ndax sëñ bi nu ko jàngaloon loo attan na joxe ngir yàlla buy booy nee booy toogee fi nga toog gis ko la ko attan na joxe ngir yàlla waaye loo attan na yàlla nee na boo moom dajit doo gis ko la ko attan mooy li mu wax te fi mu toll tembe daanaka màggal gi ñun ñëpp jekku nañ ko ba noppi kon alhamdulillah rabbil alamin yàlla yàlla na ko wér fekke ya te gungé nok mom ban egg fa non de li señ bi di wax ni ya mukriman day fi nu ko xassa waaw ci ci téré ba waaw ci ci ci wëru koor non mu ko waxee wëru koor moom noonu koy dañ ko waxee waxee gant mara yu bëgg sa yu magal gi jup see ñu ko mbum bu waaw xat atta bil bisri wal madadi waa kay waa kay xayra day fi bil bisri wal madadi weeru koor la ko doon wax moom ahlan bila dabi غير ضيف الأتى بالبسر والمدد ليس عن برمتوا أهلا وسهلا وترحبا بلا عدد يا خير ضيف قد أتى بالبشر والمدد يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد sëñ Tuubaa weeru koor lay waxal ne ko yow gan gu tedd gu yiw gi nga xam ne dikkee أهلا وسهلا وترحبا بلا عدد talal ñaari loxoom ak a yirik ko li ko agsi ak jàmm te dal ak jàmm man maay ki lay safoo man maay ki lay dalal àndaaleel nga ma mbég sama diggante sama borom àndaaleel ma mbég sama diggante jaami yàlla yi ahlan dalal ak jàmm wa sahlan te nga féex te dallu man mi maay ki lay ganale yaa xayra ضيف أتى بالبسر والمدد di ko teeloo alxuraanul karim ak fulkul masxum ak woor weeram ak berndeel nit ñi. ahlan wa sahlan wa tarhiban mu bëgg nag ni ko Sëriñ Tuubaa dafay weeru koor nun taalibe Sëriñ Tuubaa yi ko màggalam gii di ñëw. lasita dayfan kariman sairan abadan. Sëriñ Tuubaa ne nag gan yi yëpp gan gi gën a tedd ci gan yi mooy weeru koor waaye ñun gan gi gën a tedd ci ñun mooy màggalu Tuubaa. borom Tuubaa nee na weeru koor li mu koy terale jaamu yàlla mooy ay bernde bu dog jotee waaye noonu màggal gi li mu koy terale jaamu yàlla mooy bernde yi ngeen di bëgg a def ku màggal weeru koor ngir jëmmi yàlla suñ borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ko fi andi nee boo koy màggal nag seetal ñi ragal yàlla te am xam-xam ñooñu ngay woo ñu bokk ak ngeen màggal weer yi boo ko xasee tàmbul nag taxawal ak moom faw te bul ko bàyyi loo ci bëgg yàlla defal la ko ca. kon sëñ Matar màggal gaa ngi noonu taxawal leen moom di ko def ci xam-xam mooy xam li ngeen war a def ba noppi te sell te ba noppi di ko sellal. bu ko kenn ñeebul dara ku ne loo man ci doole mbaa ci alal na ko defal sëñ waa ci bisam boobu. loo ci defal borom Touba di nga xam ne am na pay yàlla am na pay rasulaay am na fay te Touba ci boppam am na fay. màggal weeru koor ak dundal ko sëñ Touba nee na tax a mucc ci musiba. waaye màggal màggal Touba day ba tax a mucc ci musiba day tax a mucc ci ak màgg ak ñàkk. borom Touba nee na màggal weeru koor di def sa alal day tax a dolli ko foo toll ci kaw suuf. waaye foofu addee jox Sëñ Tuubaa day tax a yokk ci kaw suuf foo mën a toll yow tamit. aji tabe ji muy suñu borom a taala moo lay naddil loo xamante ni a ko wutal sa bopp boo tabee ci bisam boobu ya sahra rabbil karim fika jaadalana yow weeru san borom mi nga xam ni yaay aji tedd ji yow tax nga maa tabe man xaadimu rasulillah laylatil qadri zaatil fadli warad baax gi nga baax moo tax bi ngay ñëw nga àndaleel ma guddi gu toll ni leetul xadar waaye magal Tuubaa tam jox nañ guddi gu toll noonu de laylatil qadri zaatil fadli réew mi ak yi nekk ci jataay bi ak yi nekk bitim réew na ñëpp màggal màggal borom Tuubaa gi ku man nag nang ko ci def ku man gileem nang ko def ku man ginaar sax defal Sëriñ Tuubaa dana la fay min maliki fika isaadal moo waxoon ni diggante ñaari keef yi lu ci waaye man nag ma ko defal sama màggal gi latubtin fika aydan maadiyan abadan keef gu jëkk gi mooy la ko dale ca gileem keef gu mujj gi mooy di ko dale ci ginaar nee diggante ñaari keef yi lu waaye man jox ma ko boo tàmbulee ci gileem nag nanga ciy teg génn ci nag jaar ci xar jaar ci bëy ba keneen nga yegsi ci ginaar lu waaye man defal ko suñu kii rekk waay maa ngi woote ren ji ku mënta jox naget boo amee sax ko àndaale am xar andi ko ku am bëy andi ko ku am ginaar andi ko ku am nag joxal borom Tuubaa Xaadimu Rasuul lu berndeele ko gani sëñ Tuubaa yi nga xam ne dañoo ñëw ngir sant la sëñ Tuubaa yàlla ci màggalam boobu. jërëjëf Serif loolu la sëñ Tuubaa doon wax ci message bii muy wax nii. kon màggal gaa ngi noonu. goyayoo miraaso ba mel ni koy faraaso na ko ñëpp wàcc te ñaan yàlla ak loo xam ne boo ci jubloo. da ngay yëg aal ji nga àndal waaye boo ci génnee dangay ngay ànd ak mbég rawat nag koo xam ne daanaka ñëpp buur nañ jëm si caw yow bëgg a màggal ak yow sëñ Saliou ni màggal Tuubaa bu ñaar yi dendee kii fonk ko kii fonk ko sëñ ko daan son doxee diir ki ko fonkut dana gis ni mu ñëwee ki ko fonk waaye nee na tam ki ko fonk dana gis lu mu tane ki ki ko fonk da koo xam bi muy doog a xew booba taalib yi dana wax ku ci am xarum tabaski da nga ko yar ne dama koy denc ba màggal gi ñëw ma def ko ca ba murid yi sax tudde woon nañ ko tabaskiwaat loolu siiw na waaye fii jamono tollu Sëñ Tuubaa da koo xamoon xam ne ay waxkat a ngi ñëw te su leen ci bàyyee boobaa ñu defe ne Sëñ Tuubaa daa daa teggi sunnas maam Ibrahima tegee fi boppam Sëñ Tuubaa leen day nuru aada mbaa muy nuru ni yàlla dogal te Ibrahima defoon ko daa ko xeeb kon ku mën a tabaski tabaski te ko màggal man a màggal nga màggal ñëpp def ko ba tabaski ka jàll mu woo leen ban ñëw mun leen xam naa tabaski de baax na lool waaye def màggal gi gën ci yéen ndax Ibrahima de ñoom desoon nam defal na leen waaye yéen li ma leen defal Ibrahima leen ko murid sëñ Bamba yii ah Ibrahima yàllaa ko yónni nag wa hajjul bayti lu ko tax wa ashrafi naasi bil hajji yatu ko rijaala wa ala kulli damirin yaatina min kulli fajjin amiix loolu dëgg la waaye loolu sëñ Tuubaa defal nii nu mel nii waaw ah, yii wax dëgg nag du Ibrahima nag seen addi yii seen mbubb yu rafet yii seen kaat-kaat yii ak yi ngeen àndi seen couple yi loolu moom liggéeyal gun liggéeyal sëñ Tuubaa ci kër suñu borom moo nu ko may ku fatte nak la la far fuliko kon ñepp nan jaajuwaat ci jublu ci moy mbir mi bi nga toge ke dama ci waxtan ma yor ak sëñ Ndiaye sëñ Ndiaye sëñ Tuubaa li mu seexal kenn xamul lu mu toll maam Thierno mi ginnaaw sëñ Tuubaa li mu seexal kenn xamul lu mu toll waaye bari na ci seex yo xam fi ci saw da ngay jëm ci liir beeg dégg seen i tur waaye néewaa da nga dox da dajeeg seen dom te sëñ Tuubaa du samp luy fay kon ku ne la nga yor ya koy dundal